ànduñu ñoo moom parce que dañoo adhéré ci idéologie Sonko Sonko amul benn idéologie wax leen noonu am idéologie Sonko xam nga Sonko problème am poussé Macky Sall ma toog léegi poussé Macky Sall boobu ma toog tombeeg Sénégal yi bëgg a pousse Macky Sall ndax jëpp Macky Sall ak régime am sonn ñu lekk ñu naan ñu nangam a sàngam ñu profité aussi maintenant avec la complicité triste malheureuse de la presse Sonko fii chaque jour mu toog fii dana ko j'étais ban journaliste Sénégal à part moi on peut tout des de moi mais fii kenn sañul taxaw fii benn amul journaliste professionnel bu sañ taxaw fii naa si Diouf du journaliste mënta ne. Sonko moo fi indi aussi espèce de chroniqueur yoo xam ne kenn mësu leen gis ñoo xam ne ku jóg ne Sonko moo njëkk a yàq presse bi. avec toujours la complicité la presse parce que ñun ñooy invité ñooy suñuy plateau. fii ngay gis grâce à Sonko et ses pastéfiens moo fi ñëw jël. ñu créé ay charlatan ñuy jaay ay ay garab ay nebedaay ay xaw ma lan nangam ñun leen ñii chroniqueur lañu ñu ñëw toog bu ñu ñëwee lu ñu chroniqué Sonko baax Macky Sall la bon. chronique bi yëpp loolu la Sonko baax Macky Sall la bon ñu pare ci ci ci charlatan yooyu ñu jël ay espèces yu ñu xam xamuñu dara benn mënuñ sa benn bu baax ñun ñu chroniqueur ñu ñu ñu jox leen espace ñu créé judd. après à de ça nag maintenant mu doog a ñëw nag ay journalistes yoo xam ne. ñu ma ne Aïssatou Diop ñoo xam ne kenn mënul ne weddi na ñii ay journaliste lañ ñu toog ci seen plateau ñoom ñëpp am na ni ni ni ñu xas ni bàttee mi xasee euh, euh, groupe Futurs Médias danaa si ñëw ci yooyu yëpp mais c'est parce que groupe Futurs Médias mooy ñëw mooy numéro un ñun ba ñëpp ba journaliste Sénégal yëpp couché parce que fii nu mu amee ay magistrat couché debout yàgg nga ko dégg noonu la amee une presse couchée quand toute la presse ah à quelques exceptions près c'était couché devant Sonko par peur mooy dictature bi nga waxoon may passé unique bi euh, doyen Soro yàlla na ko yàlla yërëm wax toute la presse presque s'est couchée devant les menaces de Sonko seul le groupe Futurs Médias a résisté te malheureusement pour Sonko ma ñëw malheureusement pour Sonko groupe bi résisté am na yeneen groupe bi ndaw na nawaan yoo xam ne résisté nañu waaye fasuñu ndax kii numéro un sénégalais yi nga bëgg nga bëgguñu nga bañ ñu ñoo saf gaañ boo xëyee suba boo seetaanoon info matin seetaanoo dara boo xëyee suba boo dégluwul RFM dégluwoo dara boo xëyee suba ba ba jëlee sa ñaar fukki dërëm dem jënd ji l'observateur jëndoo dara léegi nag boobu nag malheureusement pour Sonko et son entreprise de destruction massive